trois un un pexe dëkk ngir aji gàddaay yi dëkku New York dafay jàppale ñi fa dëkk ñëpp kenn du ci nekk kenn ku ci nekk bokk na ci woy gàddaay yi ñuy bindul mën nañu jot ci mëneef yu bari ci dëkk bi mëneef yi dafay boole mbir yi mel ni dem ca daara ja wala jëfandikoo système wérgu yaram bi yaatalal sa xam-xam ci wàllu mëneefu dëkk yi fii mu di site internet bi www point nu nyc nyc point gov slash site slash immigrants slash city services slash basiccare point page ngir xamal la naka la ñuy jotee ci mëneef yi gouvernement wul dëkk New York wooteel ci 311 wala nga dem ci site bi http deux point slash slash portal point 311 point nyc point gov gov slash